ngir yàlla gëm leen dogal bii yàlla buur lu mu def moo gën te moo fal jomaay def fan ko muy moomi ngir yàlla gëm leen dogal bii yàlla buur lu mu def moo gën moo fal jomaay def ko muy moomi am réew bu jópp jógee booloota naa ma nee kañ naa ma ngee ku ko bañ sab xol du fee xeeti sonkoy jomaay te jomaay mooy sonko lii ya am gaa yu sax ci di mer seen xol du seddeeti lu man di xew nañu xam ne réew mi kenn nelawul ña yewu ñoo yee doon nelaw ñu yewooti fuñ gis ku baax gis ci yow ay jikko buñ gëlamul danañ la jàpp ka tiiw te li am niiti sonkoog jomaay lii ñu am yàlla bëggul ya boo nga muñ buur palam ku bañ ko yaa fóoti waa Sénégal ci sàcc yi ma fi gis ab sàcc kañ la fi daa am kaddu bay woote waa Sénégal yow leen ci sacc yi ma fi gis ab sàcc kañ lafi fi daa am kaddu bay woote ànd ak naa fiq tey wër naa dañuy xajamal nguurug jomaay géeki sonko wër di sankaate ku sanku yaa amatul ku réere sonkoog jomaay sanku yaa sanku waaye mi moom amatul kuréere Sonko ak Jomaay ci njub xamal leeti ñii àndandoo def bolok naar réew mi kenn déggatul teñ leen a yóbbu bolok seen xel yi del seeti Sonko ak Jomaay seenu yoon ay yoon wa kon wéyalal Jomaay tebul geesu ku doon Ousmane bu leen wute Sonko ak Jomaay seenu yoon ay yoon wa kon wéyalal Jomaay tebul geesu ku bu leen wute na buur musal leen te aar leen sàmm leen téye leen nim aare seen yoon ba fii ngeen sobe réew métti na buur musal leen te aar leen sàmm leen téye leen nim aare seen yoon ba fii ngeen sobe réew métti alhamdulillahi na alamin